monsieur Ngom euh, ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi leen di fay. ñuy fàttali suñu auditeurs yi ne ñoo ngi dalal tey euh, Modou Mamoun Ngom doon directeur des télécommunications ca ministère de l'économie numérique et des télécommunications mu méngoog bës bi nga xam ne dinañ door ñaareelu édition forum du numérique fii ci Sénégal ñu fas yéene ko amal ñaari fan ñu bëggoon a xam lan mooy solob ndaje bi. jërëjëf solob ndaje bi. Euh, moo di ne euh, président de la république Macky Sall mhm. euh, dafa joxle woon ay digle pour que ñu am forum du numérique forum du numérique nag defoon nañ ko ñaari at ci ginnaaw mhm. en mars deux mille dix huit moom moo nekkoon première édition bi ren nag mu ne ñu defaat ko am lum mu ci toftal lu am solo mhm. moo di Euh, grand prix di chef de l'État pour l'innovation numérique maanaam lépp loo xam ne day jëm ci xarale yu bees yi non seulement ñu def forum bi comme niñ ko daa defee wante tam ñu yokk ci grand prix boobu nga xam ne sunu ndaw yi nga xam ne ni ñoom ci xarale yu bees yi la ñuy yëngu ñu xool nañ lañ leen di xool euh, ñi nga xam ne ni ñoom ñoo ci gën a xarañ ah président de la république mën leen ràññee mën leen ràññee ak grand prix Euh, di chef de l'État pour l'innovation numérique bi nga xam ne nii moom da koo jagleel euh, ci ci ci forum bi forum bi nag bu nekkee dañ ko def dañoo bëgg mu nekk bërëb boo xam ne nii euh, dañuy am ñi nga xam ne dañoo am seen xarañte ci wàllu xarale yu bees yi ñu ñëw waxtaan ci pour que ñu jéem a xool loolu nan la mën a njariñe Sénégal pour que sunu réew mën a jëm kanam maanaam ñu def ay jéego buñ ci jógee mën a def wala teg euh, loo xam ne nii buñ ko toppee sunu réew dana def ay jéego ci wàllu xarala yu bees yi wante tam dina dem ba lépp li nga xam ne nii nit mi ciy yëngu loolu tamit xarala yu bees yi mën ci mën dugg ba mu nekk njariñu loolu mu nekk ci wàllu njàng mi mu nekk ci wàllu wër gi yaram bi euh, mu nekk ci yeneen domaines yi nga xam ne nii am na même wàllu mbay meek yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne nii euh, dañoo bëgg ci biir forum bi loolu nit ñi mën ci waxtaane buñ ci jógee nag euh, loolu ñu mën koo gën a euh, béral teg ci mu nekk lépp loo xam ne nii lu bees lu ñu mën a def pour suñu réew président de la république ambition d'émergence bi mu am pour Sénégal numérique bi mën ci mbay waaram bu baax a baax mm-hmm. mu mel nii euh, dafa am thème bi nga xam ne fas yéene ngeen cee sëgg gën koo waxtaanee ñu bëggoon a xam thème bi rek. waaw thème bi euh, buñ ko nekkee jëm nañ ko tënk ci tubaab dañ naan le digital au service de la gestion de la pandémie et de la relance économique. buñ ko jéemee tënk. Mm-hmm. ci ci ci ci ci wolof. dañu ne euh, lépp loo xam ne ni ci wàllu xarale yu bees yi la. Mm-hmm. ñu jéem a xool nan lay mën a amee njariñ pour que. mbas mi am ci réew mi euh, xar lu bees yooyu bay ci seen waar ba ñun ñu mën koo dékku mm-hmm. wàllu la yu bees yi teg ci tamit buñ jógee ci loolu xarala yu bees yi nan la mën a fexee ba buñ jógee ci loolu Sénégal pour ko mu gën a mën a suqaliku maanaam sunu koom-koom gën a mën a suqaliku mm-hmm. nan la xarala yu bees yi mën ci tamit am loo xam ne dinañ ko ci def mm-hmm. loolu su nekkee mën naa jéema tënk thème bi ci wolof loolu lay tekki. loolu lay tekki euh, tey jii euh, sànq nga wax ko sax ci say euh, biir wax mu am lu yees ci ñaareelu édition bi muy grand prix du chef de l'État pour l'innovation dans le numérique lu waral ngeen tàmm amal prix bi ni waaw prix bi li tax président de la république ma moom moo bëgg forum bi ñu daa def dugal ci loolu. Mhm. maanaam grand prix boo xam ne nii moom moo ko tànnal boppam. Mhm. moom moo koy joxel boppam. pour que wàllu xarala yu bees yi ak lépp loo xam ne nii rek euh, lu lu lu lu lu jumtukaay yuñ mënti utiliser tamit lépp luñ mën a def euh, pour gën a wane xarañte mm-hmm. suñu ndaw yi mm-hmm. ñu def ko ci mm-hmm. donc xarañte suñu ndaw yooyu moom mooy lu am solo ci édition deuxième édition bi ñuy def ci forum du numérique bi te président de la République ci boppam moom mooy ñëw ki nga xam ne moom la ñu ràññee mu nekk ndaw Sénégal def lu mucc ayib mu ñëw Euh, euh, teral ko ràññee ko euh, ci ci ci biir ay nawleñ ak ci kanamu Sénégal yëpp. ndax loolu moom moo nekk mhm. ndax bëri woon na ay ndaw yi nga xam ne déposé nañu seen candidature si jongante googule. waaw jongante boobu ndaw yi nga xam ne nii ñoom bokkoon nañ ci matoon nañu jegewoon nañ téeméer ak ñeent fukk. Mhm. donc ci téeméer ak ñeent fukk yooyu ñu ràññeeti ñett. kenn koo xam ne nii moom grand prix bi nga xam ne ni président de la république moom moo ko tànnal boppam. Mhm. Euh, kooku lañ mo président de la république dina ko ràññee. Mhm. Euh, dana am euh, ab dinañ am vingt millions boo xam ne dinañ ko ko récompenser. mooy ko jagleel. waaw mooy enveloppe bi ko jagleel. Mhm. ci grand prix boobu bu ñu ci jógee tamit am na ñaari prix spéciaux. yoo xam ne nii dañ am prix spécial euh, femme digitale maanaam jigéen boo xam ne nii moom lañ gën a ràññee tamit ci wàllu xarala yu bees yi. Mm-hmm. ak beneen prix boo xam ne nii euh, jeune la maanaam koo xam ne ndaw la euh, ñu ràññee tamit te matalul ñaar fukki at ak juróom. Mm-hmm. ñu teeral ko aussi jagleel ko prix boo xam ne nii tamit fukki million lay nekk. Mm-hmm. loolu moom mooy li nga xam ne nii moom la ñu jagleel ndaw yi. mu mel ni li ci des euh, ngir mu door bëriwul ay waxtu rek moo ci des ndax lépp yemb na ngir euh, ndaje boobu jaar yoon. waaw waaw fi mu nekk nii euh, ñu ngi ci woon depuis ay weeri weeri weer. Mhm. ngir waajal forum bi. Mhm. ak grand prix bi nga xam ne ni moom laa àndal. fi mu nekk nii lépp fi mu nekk nii yemb na pour que ñu dem ci ak jàmm ak salaam. buñ ci jógee tamit mu nekk ndamu président de la république nekk ndamu Sénégal monsieur Ngom nga doon euh, tamit wala sax ngay assurer tamit euh, lii di euh, fonction chef de projet PSE ci wàllum économie numérique ñu bëggoon a xam place su lii di économie numérique ci lii di plan Sénégal émergent. waaw ci wàllu Sénégal émergent bi xarala yu bees yi dañ ci am pàcc bu am solo. Mm. dañ ci am pàcc bu am solo ndaxte dañu ci biir plan Sénégal émergent dañ jàpp ne. xar lu bees yi mhm. moom mën na gën a suqali suñu réew mhm. mën na gën suqali suñu réew bañ a yem rek ci li nga xam ne ni moom lañ ko jagleel wante bépp yëngu-yëngu fépp mhm. foo xam ne koom-koom mbirum koom-koom la ñu mën a utiliser euh, jëriñoo xari xarala yu bees yi pour que ñooñu tamit euh, liñ daa def ah buñ boon def benn tamit loolu ñu yokk ko euh, te loolu gis nañ ne xarala yu bees yi ci bépp domaine ñu ngi koy gën a utiliser ci biir Sénégal. Mm-hmm. ndaxte loolu lan lay li li lan mooy euh, jeexindal jeex moo di ne jeexital bi moo dine ne dana tax euh, liggéey ñu gën ko mën a am. Mm-hmm. dana tax tamit yokk yokk am maanaam euh, li nga xam ne nii moom nga doon def ak ni nga ko doon defee. Mm-hmm. mu gën a gaaw mu gën a xarañ. mu mu mu gën tamit ci niñ koy defee. loolu xale bu bees yi mën na ko indi ci ci ci bépp secteur. Mm-hmm. buñ ñu ci loolu tamit euh, ñu bëgg euh, xarala yu bees yi euh, liggéey yu bari mu mën ko indil boppam. Mm-hmm. yeneen secteur itam am ko. Mm-hmm. ci wàllu sunu croissance économique tamit mu am ci pàcc bu am solo. ndaxte ñun sunu stratégie Sénégal numérique vingt vingt cinq. li nga xam ne moom lañ bëgg tamit mooy ñu fexe ba. liggéey yi nga xam ne moom la ñuy am mu nekk trente cinq mille euh, emplois maanaam fanweer ak juróomi junni yoo xam ne emploi direct la mm-hmm. mu am euh, ñaar fukki junni ak euh, juróom ci cent cent cinq mille emplois mm-hmm. indirect aussi te tamit ci au niveau croissance économique bi ci PIB bi moom mu indi ci à hauteur de dix pour cent mu nekk contribution ci sunu wàllu euh, PIB loolu euh, di wane rek ne euh, xarala yu bees yi vraiment am nañ ci yaakaar lool te jox nañ ko gëddëm tamit ci plan Sénégal émergent ma yokk ci rek lenn boo xoolee président de la République mm-hmm. Mm-hmm. ci plan quinquennal bi mu am mm-hmm. bi nga xam ne ni moom la proposé woon Sénégalais yi ba ñu falaat ko numérique bi moom moo am ñetteel initiative bi mu nekk une société numérique inclusive maanaam ñu nekk benn euh, société ñu am suñu réew moo xam ne nii xarala yu bees yi dañ ci am pàcc bu am solo te ñun ñëpp ñoo koy bokk. Mm-hmm. maanaam ñëpp dinañ ci xaj. Mm-hmm. muy société numérique inclusive loolu tamit mu nekkoon ñetteelu initiative ci programme bi nga xam ne nii président am na ko ci biir Sénégal ci juróomi at yi nga xam ne nii euh, moom lañ ko falaat. Mm-hmm. nga wax ko mu mel ni danga nga anticiper ci sama euh, question bu stratégie Sénégal numérique 2025 kon 2025 le mooy app bi nga xam ne moom la Sénégal jox boppam ngir mu matal li fi lim yëpp. waaw li nga xam ne nii moom moo nekk euh, li ñu li li ñu fas yéene def. Mm-hmm. tënku ko ci Sénégal numérique bi. Euh, ambition yi ci am yëpp. loolu moom mooy li ma tënk noonu. Mm-hmm. te loolu dafay toucher pàcc yëpp. Euh, boo xoolee ñun euh, Sénégal numérique bi euh, dafa am maanaam luñ naan vision. Mm-hmm. loo xam ne dañu bëgg sukkandiku ci numérique bi pour que xarala yu bees yi mën ci jot. Mm-hmm. ñëpp tam mën a di ci di di di di di am jumtukaay yi nga xam ne nii ñoom mën nañ ci sukkandiku pour utiliser ko. Mm-hmm. Euh, te tamit ñu ànd ci ak ñi nga xam ne nii ñoom ñooy liggéey ci wàllu koom-koom yi ñoom ñi nga xam ne am nañ seen entreprise tamit mm-hmm. euh, pour que loolu tamit euh, gën leen a yokk te lépp loo xam ne nii xarañte la ñu mën ko defandoo ak ñoom te gouvernement bi fexe ba cadre bi ñuy nekk muy écosystème bi mm-hmm. mu nekk loo xam ne tam daf leen di gën a ñaax day gën a ñaax ñëpp ñi nga xam ne nii ñu ngi liggéeyee wala ñu ngi euh, euh, am jumtukaay yu ñuy jël ci wàllu xarala yu bees yi. Mm-hmm. loolu moom mooy nekk vision Sénégal numérique d'un vingt cinq. d'accord su mu nekkee jëm naa ko tënk ci mm-hmm. wolof. Mm-hmm. waaw mu mel ni ambition yi bëri na ndax euh, loolu yëpp bu ko Sénégal defee dina jëfandiku ci wala sax mu bénéficier wu ci économie numérique comme bi. waaw bu baax a baax parce que même stratégie bi euh, boo xoolee li ñuy wax euh, ci ci wàllu accès yi. Mm. Ah, mm-hmm. maanaam ci li ñuy sukkandiku. Mm-hmm. pour suñu bëgg-bëgg ñu mën ko def. Mm-hmm. Euh, dafa am ñeenteelu accès bi ah ñu koy wax ne la diffusion du numérique dans les secteurs économiques. Mm. prioritaires. loolu maanaam dañu bëgg xarala yu mu mën a tas tasaaroo ci biir bépp. Euh, liggéey boo xam ne dañ koy def Sénégal mm-hmm. ci fépp foo xam ne nii koom-koom dafay génn mu nekk ci wàllu santé bi nekk ci wàllu agriculture bi mu nekk ci wàllu éducation bi te loolu may wax yaakaar naa ne gis nañ ko ci bi nga xam ne nii euh, feebar bi mbas mi dal na Sénégal mm-hmm. ndaxte ci wàllu santé bi gis nañ ne euh, lu bari ci ci jumtukaay yu xarala yu bees yi la sukkandiku woon mm-hmm. ci wàllu njàngale mi gis nañ ne Euh, ñu bari dañ doon toog seen kër di jàng. Mhm. te loolu xaaral lu bees yi moom moo tax ñu mën ko def. Euh, ci ci ci ci wàllu agriculture bi tamit wala yeneen secteurs yi gis nañ ne nit ñi am nañ xarañteef boo xam ne nii dafa taxoon ba nga xam ne nii ñoom ni doon liggéeyee am na lu bari loo xam ne nii xaaral lu bees yokku na leen ci te loolu la fas yéene tamit euh, bu ñu jógee ci forum bi loolu gën a bar Sénégal maanaam nit ñi gën ko xam gën a gën a xam ne xaaral bees yi am na njariñ lu. bari loo xam ne nii mën na leen ko amel ñoom mhm. ci seen seen dund mhm. ci seen liggéeyukaay euh, pour que ñu gën a mën a jëm kanam mhm. monsieur Ngom Modou Mamoun Ngom merci beaucoup jërëjëf maa ngi leen di sant di leen gërëm ak seen auditeurs yi may fàttali auditeurs yooyu leen ne ñoo ngi doon dalal euh, directeur des télécommunications au ministère des postes et télécoms merci beaucoup